faxam fàcc litige foncier euh, bu Guéréo ñooñu nga xamante ni ba léegi ñu ngi laaj seen suuf exactement euh, mbir mi naka la demee fan lañ toll ci dossier bi euh, xeex bi ba fan lañ ko daal di fa yéene yeggale soutien bi nga xamante ni FRAPP France dégage mu ngi ciy soutenir les victimes du collectif de Guéréo Ndos ak tamit ñëpp ñi nga xamante ni ay victimes lañ ci wàllum litige foncier lépp daañu ko waxtaanee tey ji ak Amadou Ndione bokk ci collectif des victimes de Guéréo Météo Ndos ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw maa ngi la nuyu di la gërëm di la sant. Mhm. Euh, di sant waa réew mi di leen ñaanal jàmm. Mhm. Euh, ci feebar bi nga xam ne moo dugg ci réew mi yàlla def ci jàmm ba daxal ñu ko. Mhm. bu ñu mën a dellu ci suñuy activité amiin di gërëm euh, suñuy kilifa diine yi. di gërëm njiitu réew mi nga xam ne tey jii moom lañu jox. réew mi dénk réew mi yàlla defal ko jàmm bu mu mën a ànd ak mission mu def li nga xam ne moom la sénégalais ay doon ko xaare. Hmm. waaw parce que. nangu suuf jàmbur yi <laughs> mooy mission bi euh, dañ lay tooñ tuuti après peut-être euh, ñu laaj la exactement lan moo tax euh, ngeen tëral collectif des victimes de Guéréo collectif bi déjà lan moo ko waral ba ñuy ñëw nag ci problème bi fondamental nga faram fàcceel ñu carrément litige foncier bu Guéréo naka la deme waaw ma am fu ma tàmbalee. ci hmm. ci mbir mi. Hmm. sama frère jaar na fi jamono yu mbir mi di gën a metti euh, ma di ko nuyu de passage. du nuyu front lutte doy na avec Guy Marius ak bépp victime bu nekk ci doy na. maa lay ñaanal yàlla sa jafe-jafe. yàlla dogal mu nga dëdd ko ci li nga xam ne moom mooy li dal sa kaw. ñun nag. front lutte doy na bi léegi euh, ñu boole ñoo ñëpp pour pourquoi front lutte déjà doy na lu ko waral. waa doy na. mooy ne nangootuñu ku mel ni ñun ñun waa Géraw ndos. Mhm. ñu jël suñu suuf ñu ne état doy na parce que mbir mi ëpp na am na loo xam ne duñu ko nangu si ñoo xam ne ñoo bokk réew mi. Mhm. ci dénkaan ndénkaane bi nag mooy président Macky Sall lañ dénk. Mm-hmm. lii dal ci kaw njabootam la dal. njabootam boobu nag am nañu droit ñu ne ñun dey lii bëggatuñu ko dégg ci anam bii mooy askan bi juddu di naxarlu seeni alal. Mm-hmm. si anam boo xam ne nekkul. Mm-hmm. loolu moo waral ñu ne doy na. maanaam li dal waa Guéréo dal ñeneen ak ñeneen. ngeen boole ko yëpp ne doy na. mais est-ce que ñi nekk ci collectif bi yëpp. parce que yow peut-être c'est particulier après dinañ ci ñëw est-ce que depuis ñu sóobu ci xeex bi euh, ngeen ànd ci ak Guy Marius Sagna nekk activiste est-ce que am euh, ñi nekk ci collectif bi am nañ gain de cause est-ce que dossier yooyu euh, judiciairement wala dossier yooyu est-ce que am na avancé parce que gis nañ à chaque fois Guy dafay def ay conférences de presse ay sorties et tout waroon ngeen def marché récemment mais est-ce que euh, bi ngeen demee ci guy gi euh, ñu dajale leen ngeen def collectif doy na est-ce que gis ngeen ni am na évolution dossier yi nekk foofu. waaw yàlla dogal na ñun bi ñu duggee ci front lutte doy na. Mhm. dossier yu bari saa yu ñu ko yëkkatee rek ci mbir mi si kamuy dal ak ka koy seq ak victime bi dinañ gis jéego dina ci am. ku mel ni tey jii ñun suñu problème. tey jii président jël na dogal ne impôt et domaine situation Guéréo réglé ko le plus rapide boo te avancement am na ci. nit nag mënoo xeex dara. te avancement du ci am. boo te day mel ni ñun dëkkatuñu ci réew mi. te ñuy citoyen sénégalais. kon am na ñeneen ñu nekk ci collectif bi seen dossier avancé. waaw am na ñu ci avancé parce tey jii duñu doon nangu ñu lay joxoñ baaram chaque jour. Mm-hmm. ci benn mbir. Mm-hmm. saa ñu jógee ñu yëkkati sa tur ci mbir mi. boote yow mbir mi danga koy sooxantal te nit ku nekk danga war a jox sa cër sa morom. Mm-hmm. ci li ngeen bokk. rawatinaa nag bu ngeen bokkee réew mi. kenn warul lor kenn ku ci nekk war na xam fi muy yem moroomam te muy kàddu yu wér te nit ku ci nekk di koy yeewaale sa biir kër moytu tooñ. te tooñ baaxul ñun nag yàlla dogal na impôt domaine bi ñuy pree suñu manifestation ñu wooñu nañu ci ndigalu président ñu dem wuyu ji bi ñu demee ñu waxtaan ñu xamal mu xamal ñu ne ah président nee na ñu régler situation Guéréo. voilà après dinañ ci ñëw euh, ci solution bi mais euh, collectifu euh, Guéréo ñan ñoo ci nekk. collectifu Guéréo ñu ci nekk mooy paysans yi. ñi xam ne tey ji ñoom moom yàlla dogal na suuf bi depuis seen maam ñoo ko mu nekk seen loxo ñu si jariñoo ak seen njaboot. Mm-hmm. beneen bu ci tegu mooy foofu am na ay lotissement ñoo xam ne dëkkuñu géeraw te ñu dëkk ñëw pour dëkk ak waa géeraw am fa seeni parcelle ñii ñoo daje ñu créer collectif ba mbir mi dalee suñu kaw. ngeen boole yéen ñëpp. ñëpp ànd di xeex mbir mi pour situation am. Mm-hmm. léegi mbir mi naka la demee. litige foncier wala problème foncier je sais pas voilà. waa mbir mi ni mu demee dañoo xëy benn jour ci membre de l'État ñu ñëw village bi ñu ñëwee village ñu gis de village. un jour ban année. 2018. 2018 mm-hmm. lañ ñëw ñu déclaré chute bi ne am chute bi kat président def na ko décret. Mm-hmm. conduire ko ci turu commune Somone. te Somone moomul suuf bi Guéréo moom moom suuf bi Guéréo bokk ci commune Sindia bi mbir mi amee mu nekk lu ñu jaaxal Somone mi nga xam ne tey jii moom lañ ci tudd mais mënoon na ñàkk parce que Somone xam na ne suuf bi moomu ko ñu nag moom lagin bi moo dox suñu diggante loolu moo waraloon nag mhm. ñun ñu jox mhm. ñu ne lii de duñ ko bàyyi li tax duñ ko bàyyi mooy bu ñu conduire suuf bi ci turu commune Somone te Somone moomu ko bu pare def ko décret jox ko benn tubaab boo xam ne moom moom. 2018 lañ génne décret bi. 2018 lañ génne décret jox ko Somone te bokkul ci Somone Guéréo fu mu bokk. Guéréo ci commune Sindia la bokk. la bokk déjà mhm. boobu mooy premier problème. waaw beneen bi. beneen bi ñun si la ñu yëglu dem xool dem ci suñu commune laaj leen problème bi am nii. ndax yéen a ngi au courant ñu ne ñoom yëguñu kenn mësu fi ñëw signaler leen suuf bi. Mm-hmm. botte nag li bu amee ñoom dina leen jaaxle. ñu ne nag ñu dem fexey gisi yenn autorités yi xam ne yaakaar nañ ne suñ si taxawee dinañu faj mbir mi. Mm-hmm. ñu dem gis leen wax leen mbir mi saafarawul ñu organiser wu ci sud bi. Mm-hmm. def benn point de presse. def déclaration xamal état ne ko li nga bëgg a def. ñu ceek yow. maanaam mooy euh, kii bi euh, géro bi mu dem boole ko si si somam. waaw bu mhm. paree def décret suuf bi. Mhm. jox ko benn privé. ko kan la ko jox. de Decameron moom moom hôtel Le Baobab. Mhm. la Le Baobab mu ngi jàkkaarlook sud bi. sud bi ci boppam la jàkkaarloo. li mu soxla si suuf bi mooy lagine bi moo dox seen diggante. sud bi nag toll woon na si cinquante deux hectares. am na paysans yi am na ñi xam ne tabax nañu seen i kër bu pare. Mm-hmm. am na ñoo xam ne morcelé nañu. di bëggoon di préparer pour euh, tabax seen i kër. Mm-hmm. jotuñu leen tabax si la décret bi ñëw ñun ñu croiser les bras. deux ans yoo xam ne ñun defuñu benn activité si suuf si mooy paysans yi doon béy. mais luy firndee ni yéen a moom suuf si si naka. mais xam nga loolu yëpp. Mm-hmm. non foog nga expliquer. ñu xam vraiment lan moo tax ngeen. di xeex naan suñu suuf. waa suñu suuf. boo déggee loolu. tey jii. Mhm. ñun ñëpp ay sénégalais lañu. lu jiitu suñu juddu dañu fekk suñuy waajur suñuy maam yi di fi bay. Mhm. nekk ak suuf bi du ci dund. Mhm. tey jii suuf bi bu fekkee na moomeel la ci këyit état moo war a def loolu ku ci nekk mu ne la ah, li nga yor te nga ci def say activité te nga ci def loo xam ne pour dundal sa njaboot. fexeel def lii ak lii nga am ci wàllu këyit mais état defu ko. mais nag ñun mais suuf bi lan mooy firndeel yéen a ko moom dangeen ngeen ko occupé noonu comme ça. mais su fe waaw wala da ngeen am ay këyit yu leer parce que sànq yaa ngi wax am na ñeneen ñu ñëw jënd ci suuf bi am seeni parcelles tout ci collectif bi la ñu bokk donc naka la demee yéen da ngeen am këyit yuy wane ni suuf bi yéen a ko moom qu'est-ce qui mais suuf bi ñun moomuñu ko. ci anamu si wàllu këyit bu dee këyit. Hmm. état dafa teg këyit. Hmm. ñun mënuñu am bu dee këyit yéen amoo leen këyit. amuñu këyit. kon lan moo tax ngeen di laaj suuf si. suuf si. waaw fekk suñu maam di ko béy te Sénégal ñu xam ni muy doxe am ni suuf di tëdde tey jii koo dem di seeti suuf foog nga dem ci kii nga xam ne moo ko doon jariñoo nga dem ci moom mu mën la jox suuf bi. nga am ndigal mu jox la suuf si mais tey ji mënoo fekk suuf boo xam ne borom nekk ci activité nga pare nga bëgg ñëw nangu ko loolu amul mais léegi kon ñi fa jëndoon ay parcelles wala tabax comment ça s'est passé. mais ñooñu. Hmm. dañu def euh, dañu def euh, délibération ñu morcelé borom tool yi morcelé seen tool jox ko joxe ko. Hmm. ci anam boo xam ne ñu am kayit ci turu commune Sindia. boote am na foofu loo xam ne ñun. li nga est-ce que loolu loolu yoon la. du yoon amoo kayit nga morcelé say tool jaay ko ñoo ña nga ko jaay am ay kayit. mais président. Mhm. moo taxawoon jam ñaajo mu ne. Mhm. képp ku soxle suufu jàmbur demal ci borom ñan ñooy borom paysan bi nekk ci suuf si lu jiitu moom muy juddu. Mhm. 40 ba léegi mu nekk ci suuf si def 40 ans ci suuf si. Mm-hmm. kooku lan la ñu mën a wax. mais taxul mu moom suuf si. waaw mais loolu propriété état la. mais propriété état la mais mais état nag mm-hmm. état nag bu koy jël. Mm-hmm. état xam na li ko war. xam na devoir bi muy fa bi muy faxee joxe suuf bi ñun bañuñu ko jël suñu suuf mais ci ban anam nga koy jëlee. léegi yéen suuf boobu lan leen ngeen ngeen fa doon def exactement da ngeen fay bay euh, exactement. dañ fa doon bay. Mhm. ba 2018. ba 2018 ñu ngi fa doon bay ba léegi nii am na ñu fay bay mais am na ñoo xam ne ñu si biir euh, depuis problème bi am bayuñu ñenn ñi taxaw nañu parce que bi problème bi amee dëgg. dañoo mhm. taxaw. Mhm. te lu jiitu euh, décret bi décret amoon na fa jamono président Ablaye Wade. mu indi gàllankoor comme nii paysans yi toog di xaar. Mhm. fekk maanaam suuf si bu ñu ko joxee euh, béykat yi duñu amati fu ñu béyee c'est ça le problème. no parce que béykat yi boo xoolee léegi mbay na mu doon demee demeetu ko. Mhm. te sud bi dafa am lagine bi am jéej bi léegi nag mu nekk loo xam ne. Mhm. dëkkuwaay. gis nañu ne dëkkuwaay mu ngi fi mu ngi engagé wu foofu léegi mënuñu lu dul ñi bëgg a dëkk dëkk. léegi ñi xam ne dañu taxaw pour projet. Mhm. ñu fexey am projet wax ak euh, ñi nga xam ne ñoo téye suuf bi muy paysans yi ñun foofu la ñu nekk. parce que suuf bi mënuñu ci def leneen mbay lañ si mën a def activité benn ak projet te ñun moment yi ñu toll ñu def projet ñëpp jëriñoo ñun loolu mooy suñu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg. mais est-ce que mën nañ ko comparer ak li nga xamante ni moo amoon ca ca Ndingler. maanaam li waa Guéréo di dund est-ce que mën nañ ko comparer ak kaawu Ndingler noo bokkuñu hmm. kaay bokkuñu ba léegi hmm. Ndingler ak Guéréo bokkuñu hmm. luy différence bi ñee dañu dañ nangu seen suuf euh, jaay ko euh, comment dirais-je milliardaire boobu ainsi de yéen tamit ne nga ngeen dañoo nangu seen suuf jox ko benn euh, borom hôtel waaw waaw léegi kaaw Ndingler Babacar dafa ñëw Ndingler pour bëgg suuf. si trois cent mètres carrés. mais pour sédiment la woon. waa Ndengler muy jilaax jilaax la ñëw mais comité rural Sindia ñoo def délibération bi mais ñoom bi ñu bi ñu defee délibération bi jilaax daf ne ñoom projet bi mu bëgg a def noonu fekk sédiment la bëggoon a toxal foofu ñoom ñu ne ah ñun day xamuñu lu dul mbay mhm. mais nag xamuñu yaru ginaar mais nag commune Sindia moom moo def délibération bi bokkul la nag ak suñu problème ñun ak Ndingler bokkuñu problème. Mm-hmm. ñun suñu problème mooy dañoo xëy état joxe suuf bi. Mm-hmm. si suñu turu commune yëgul. Mm-hmm. suñu commune yëgul ñun population bi yëgul. kenn jaay leen doole daal. kenn ci population bi yëgul. mais nag xëy na état bu fekkee ne moom daf na moom mooy priorité. ci li nga xam ne mooy alalu askan bi mhm. dañuy am foo xam ne dañ fay taxaw jàngat mhm. mooy état bii ñëw mhm. si kan la war a ñëw mooy war na yëgal ki nga xam ne moom moom suuf bi ne ko ah lii de soxla naa ko si sa alal nii lay demee mais war na mën a am enquête. donc consulté wuñ leen bi ñuy jël suuf si. consulté wuñu ñu fenn. ka jox suuf si mi ngi def ay activité wala eh, actuellement defagul dara. noo defagul dara. defagul dara def dara gi mooy ne foog mu ñëw wax ak ñun. suuf lan la fa bëgg a def. hôtel. dafa bëgg a tabax. waaw tabax hôtel mu ne projet lay def te moom jàkkaarloog ñoo moom ba léegi état moo ñu wax ne projet projet lay def foofu muy hôtel. Mm. ñun nag jàkkaarloog ñoo moom mais nag suñuy suñu gouvernement bi wax nañu ñu ci tuuru. président Macky Sall xamal ñu ne projet la boo xam ne Guéréo mën na ci gagné. ci naka. mais su defee hôtel. Mhm. mooy it créé na emploi te tey jii gis nañu fi réew mi toll problème mu emploi daf fi jafe Guéréo dina am lu mu ci bénéfice su. Mhm. loolu dañ koy nangu mais nag le reste mooy ci loolu ci wàllu siw ci suuf bi. les douze hectares. est-ce jàpp ngeen ni euh, su tabaxee foofu otel eh, bi est-ce que réellement waa Guéréo ñoo ciy bénéficier wu ci emploi yi. est-ce que loolu am ngeen ci am ngeen ci am ngeen ci <laughs> euh, comment dirais-je am ngeen lu ci wóor lu dëgër lu ngeen mën a jàpp. wala dañ leen koy naxee. ku ñuy nax ñu hmm. toog ki nga xam ne moom la président chargé mission. mbir mi mm. ñu toog ak moom muy impôt domaine toog wax ñu lu leer lu jóge ci kilifaam mun mënuñu lu dul gëm waxu kilifaam ak moom mi jottali waa maa ngi ñëw mm-hmm. naxe projet amul parce que projet moo tax ñu def décret bi def projet moo tax décret bi juddu bu du woon projet décret bi du juddu botte nag ñun mënuñu gëm loolu mais projet bi ci ba taxaw lay am ci paysan yi ak collectif bi moo waral nag ñun ñu waxtaan ak impôt et domaine ñu ne ko nag lii ci projet bi boo amee ñun collectif bi ak paysan yi ñun ñooy gere projet bi ak euh, le groupe de Cameroun mooy ne lii lañ ci bëgg activité bi xam ne tey jii ñi doon nekk foofu di napp seen en canne pêche dañuy continuer seen activité ci lagen bi deuxième bi mooy ñi doon def pàntu ci dex bi dañ doon dañuy dañuy continuer seen activité beneen ba ca tegu mooy ne population bi dañuy am accès foofu képp loo xam ne tey jii mm. géro war na ci bénéfice yu mooy première mooy ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy victime ñoo si jëkk bénéfice ak population bi botte nag ñun projet bu duggee ñun xam nañu ci taxawaay bi ñu siy nekk duñ si wax waxu fala fala dañu wax bind ne lii lañu ñu namm lii la ñu bëgg ci projet bi léegi à part hôtel bi lan ngeen bëgg ci suuf si des lan ngeen wax ak état. non lii des. ay terrain jàmbur la. Hmm. dañ ko morcelé. parce que loolu dafa bokkoon ci cinquante hectares yi. Hmm. li ñu morcelé la noonu dafa bokkoon ci cinquante deux hectares yi. Hmm. léegi nag douze hec douze yi. moom mooy li ñu yaakaar ne loolu mooy li nga xam ne morcelé wuñu ko ñu ne moom la paysan yi téye woon loolu. mooy ne bu ñuy joxe loolu la ñuy joxe. parce que loolu laa doon laaj maanaam bu ñu tabaxee hôtel bi kon léegi paysans yi baykat yi fu ñuy bayee parce que peut yow géréo mënuñ dund sans bay. géréo mais suuf boobu rek. newu fi mhm. géréo am na yeneen suuf. Mhm. bu dul boobu. Ah, loolu si kon ngeen di yëngu-yëngal kon am na yeneen suuf. mais nag ci alal ci ay loxo la newoon ñu yëngal ci ay loxo parce que ni mu ñëwee mbir mi ni mu ñëwee. Mhm. yow bu doon yow doo ko nangu kenn du la fekk sa biir kër na la yee eh, li sa kër gi dama koo soxle ci ban anam di nga mën a yow sama kër boo ko soxlee ci ban anam nga koy jële ñun loolu lañ doon xaar parce que loolu mooy ne ah yow nga ne li nga bëgg a def ci kër jàmbur mais foog nga waxtaan ak borom mënoo xëy def ko. bi bi problème bi amee euh, kanakaan ngeen gis kanakaan ngeen waxal. non waxtaan nañu suñu autorité gis suñuy autorité def ay jéego. def manifestation. bi ma porté xeex bi ñëw dakaar ak Guy Marius mm. si la situation yi décanté wu de. mooy kañ. mooy bi ñu nekk defee suñu man préparé suñu manifestation avant tabaski. Mm. si lañ ñu woo woo ñu woo. si la doog am benn avancé ko benn avancement. Mm-hmm. si la ñu impôt domaine woo ci turu président Macky Sall. boote nag euh, fi ñu toll situation yi. Mm-hmm. mooy ne. Euh, lépp li ñu warloo état état mu ngi def li warloo ñun ñun paysans yi. mais est-ce nekkul di leen nax ba am li mu bëgg. ma wax la benn affaire. Mm-hmm. maanaam nax leen voilà buñ taxawalee hôtel bi waa Guéréo voilà jeunes yi ñoo ci bénéficier wu dinañ si liggéey ainsi de suite nga ne waa d' accord su dee loolu la d' accord li des ñu bay ci ñu dem ba taxawal seen projet andi ñeneen casé fàtte waa Guéréo. non est-ce que nekkul ci processus boobu la ñu toll. noon non non juste pour ngeen arrêter xeex bi ngeen di xeex. non xeex bi. Mhm. xam nga ñun bu ñu neexoon du ñu xeex. Mhm. parce que xam nañu lay xew si suuf bi suuf bi du ne da ngay ñëw jël ko ci nii ñun dañu pare démb tey soog ñëw. ci naka. mooy ne suuf bi ci mystique wala lan. sur tous les plans. si côté mystique. parce que suñu alal la. dañ cee nekk xam nañu fi ñu teg suñu tànk. mais nag kii soxla foog nga ñëw si ñun booy soxlawul boo ñëwul ci ñun li nga bëgg du sotti ñun foo la ñu wékku. ah kii ñëwul ci yéen la mu bëgg am na ko. ah am na ko lu tax ñu yegg lu lu tax ñu yegg fi ñu yegg nii. mais 2018 ak léegi yàggul. 2018 ak ah, léegi ñaata la. 2018 deux ans la. deux ans deux ans da nga ko xeeb. mais booba ak léegi projet am taxaw na peut-être day ñëw commencer ay travaux li mu am kay bëgg na ko. non mënul àgg rek taxawal travaux parce que yow non état nan la koy joxe priorité waxtaan amul état du def ak état du violer loi ay këyit yu leer état joxagu ko këyit yu leer pour mu ñëw taxaw parce que état ñun joxaguñu këyit état foog mu jox ñu këyit waa ji mën a implanté wu ci sud bi mhm. loolu mooy yoon état du violer loi kon état naxule état. xalaatu sax mais mais mais Amadou fan nga mën a teg ni <laughs> euh, état du Sénégal lim leen dig nii dana ko respecter ci affaire Guéréo. non dina ko respecter que les jeunes de Guéréo euh, les populations de Guéréo dinañ bénéficier wu ci projet hôtel boobu nga xam dañoo nangu seen suuf jox ko benn privé lan ban ban garantie ngeen am ci état wu Sénégal. àddina ba mu sosoo waxtaan moo ko moom moo ko. ba léegi li li nga wax mooy. impôt waa impôt et rek ñoo leen mais entre impôt et mi ñoo leen woo. non woo na ma. non ministre président dalal nañu ainsi woo mënuñu woo. président mooy mbir mi. président lu tax woowu mais daf boole koo xam ne moom moo ko teg fi mu nekk. Hmm. léegi ban garantie la leen waa impôt et domaine jox. impôt et domaine ba ñu ñëwee wax nañu ne lii. état day lii la dogal pour ñu régler situation yi. Mhm. régler situation yi ñu ne leen benn mooy nañu fexey annuler décret bi. Mhm. état nañu mënuñu annuler décret bi lii état nee na lii mooy dinañu leen defaral ku ci nekk këyit. këyit. waaw pour ci turu. si sa suuf. Mhm. ñu jox la ko. ku nekk dana leen defaral këyit jox la nga xam ne yaa moom. fii suuf bi ku ko soxla ñëw ci yow. ñëw ci yow. beneen ba ca tegu mooy li nga xam ne mooy projet bi li ngeen wax ne douze hectares yi xam ne moom la paysan yi téye wala maximum onze hectares yooyu la ñuy jox waaju mu def ci hôtel mat na hôtel ñun loolu la ñu ñëw taxaw ak impôt domaine impôt domaine def si jéego nañu dem leen lever ji sud bi ñu dem lever sud bi indil ko ak képp koo xam ne am na foofu ñu jël këyit yi jox ko impôt domaine botte nag mbir mi yow bul jàpp ne mbir mi naxe am na ci mbir mi naxe amu ci. ñun xam nañu fi ñu teg suñu tànk xam nañu. la ñuy demee ak fi ngeen jàpp foofu la. waaw xam ngeen di ngeen jot seeni kayit si lu wér. xam ngeen ni il suffit ngeen am seen i këyit voilà suuf si ku ko soxla ca ca borom këyit yooyu lay jaar. waaw leen na leen ni borom hôtel bi bu tax tabaxee hôtelam population Guéro ñoo ci bénéficier wu. au que ñuy àndi ñeneen ñoo xam ne bokkuñ Guéro. Mhm. c'est sûr. c'est sûr parce que dañ si wax bind këyit. Mhm. tënk. Hmm. kon xeex bi jeex na. xeex bi jeexul la ah. kañ ngeen gis waa impôt impôt et domaine. non impôt et domaine depuis avant tabaski ba léegi ñu ngi gisee ak ñoom ñu ngi gisee ak moom ñu ngi dégg ak ñoom ñu ngi leen di laaj dossier bi fu mu em ñu ngi dem. bu paree di dem ci paysan yi. Hmm. di dem di gis paysans yi wax leen fi ñu toll ba bii mujjee weekend ça fait deux weekend si weekend bi si la ñu dem yëpp leen kayit yi. Hmm. nu leen ah diw day moo yor këyit yi ku ko soxle ci ñi xam ne mbir mi moom la concerne nga dem ñu photocopie la nga jox sa njaboot mhm. mu liir mhm. liiral la li xam ne moom moo nekk ci protocole d'accord bi boote nag la ñuy def leer na parce que du ñu indil loo xam ne population bi suba dañuy am sikki sàkk donte alal bi suñu alal la mais gérowo ko moom ñun ñu ngi si biir kon léegi Amadou seen xeex jeex na tontu woo ma de suñu xeex jeex na. seen xeex jeex na. wala <laughs> xeex bi wala mi ngi doog a tàmbali. non non ba ngeen jot seen i tàmbaliwul parce que waxtaan moo ko hmm. waxtaan bi yegg nañu fii. ñun ñu ngi toog di xaar. pour di ah, suivre mais Amadou instant bi euh, euh, ay waxi kese lañ leen wax de comme ni ko tubaab di waxee. les du waxi kese xam yow yaa jàpp ne waxu kese la du waxu kese. ba ma boo ma waxoon jot nañ suñuy kayit. mais jotaguñu këyit yi mais këyit yi ñu ngi ci liggéey bi. waaw parce que. mais dans combien de temps. non parce que dossier bi dem na Mbour. Mbour moom mu ngi bokk ci département euh, ñun ñu ngi bokk ci département Mbour. Hmm. commune Sindia. impôt et domaine bu mbur ak CADAS ñoom ñooy wàcc sur le ñoom ñooy def étude yi jébbalaat ko impôt et domaine fi mu nekk nii foofu lañ toll. botte nag mbir mi. Mm. amatul loo xam ne dañu si sikki sàkk dañu siy teg suñu loxo te di ànd ak ñoom ak di ànd ak état di xool. li nga xam ne état mu ngeen bàyyi ñu tabax fa hôtel bi. hôtel bi mënul ñàkk. Mm. xanaa waa ji mu dellu gannaaw. bu fekkee ne bëggul nag keneen ñëw ñun nag dañ ne. ak mbir mi fi mu toll. moom moo kon kay yéen yéen loolu ngeen bëggoon ay genre chantage ngeen doon def Amadou. chantage mais nekkul askanu. non non non non euh, bul wax chantage askan moo leen taxoon jóg. non du bul wax santaas wala yi nekk si ko dañ leen dig dara si hôtel bi tax ngeen bëgg seral affaire yi. <laughs> état moo indi projet. waaw ñun indiwuñu projet de. waaw bu doon ma xanaa waa impôt et domaine wala day dañ leen woo am lu ñu leen dig ci ci ci projet euh, borom hôtel bi. borom hôtel bi moo ameel paysan yi mais paysans yi ameeluñu ko. suuf bi joxewuñu ko ni joxewuñu ko ni joxe ko noo xam ne. moom dañ koy jox mu dem. mais yéen bi nanguwu leen woon pour ñu kooku. taxawal fa hôtel bi parce que xam lu tax. parce que man ma njëkkee invité sa sa sa frère bi fii ak yeneen collectif yi bari na. Mhm. mais déjà dañoo nanguwul ñu tabax fa otel di nangu suufu paysans yi di ko jox ay privé comme ça se passe un peu partout Sénégal loolu ngeen nanguwul woon mais su ngeen demee ba à un moment ngeen d'accord ci hôtel bi. peut-être ça pose problème parce que waa Ndingler ñoom dañoo bañ ba tëdd ci naaj bi. waaw xam nga ñoom seen suuf rek soxlawuñ milliard. soxlawuñ dara ñoom seen suuf lañu. soxla xam nga yow da nga visité yow da nga visité wul. mais yéen xam nga lan mooy sa problème. Hmm. yow visité wuloo bi. Hmm. demoo si sud bi ba nga xam sud bi guddi mu toll lan la man ah yéen daal yéenay laaj. suuf waaw non ñun yéen a wax suñu suuf. waaw xam nga suñu suuf. bu buñ ko waxee mooy na dañu si nekkoon démb ak barka démb di ci jariñoo. Hmm. bu ñu demee nag ba état moo ñu yilif ñun ñëpp. mais état bu defee lu lu arrangé wu ñu dañ naan kan lii arrangé wu ñu d'accord ñu seeg yow ànd ñu seeg yow. Mm. ñun loolu la ñu def. ñun ñu ne état bu fekkee daf ne projet bi day am lu muy jëriñ dëkk bi ñun te paysans yi li ñu yor morcelé wuñu ko amul ñu ci dëkk dañ naan kan lii paysans yi yor nañ ko jox nañ ko jox pour projet bi état wax ñun loolu la ñu def te loolu pour ñu joxe ko mooy ne. waa ji day waa ji day ñëw jënd. Mm. ci borom tool yi. d'accord day ñëw jënd ci borom suuf bi. muy paysan yi ci borom suuf lay ñëw jënd. jënd euh, li mu soxla foofu. li mu soxla. ok te soxla boobu mooy ne du am intermédiaire mooy mooy paysan yi mm-hmm. ak collectif bi ñooy ñooy ñooy nekk ci mbir mi keneen du ci dugg mm-hmm. moo tax ñun ñu ne maam booy maanaam dañ leen defaral seen kayit ba noppi léegi même kooku bu soxlaa fu mu def otelam day ñëw ak borom kayit yi wax ak ñoom ba ñu jaay ko moo mënagul def dara te jàkkaarloowul ak borom tool yi ba ñu waxaale ci prix bu juboo mu soog a ñemee def hôtelam mënu ko. mais dañoo a sacrifier seen i tool ndax xaalis. non sac non xam nga yow ba léegi da nga demul ci sud bi quoi te dinaa la fa yóbbu incha allah. d' accord xam naa ne boo fekk bu may dégg waa di ko wax ñoom seen suuf rek euh, moo leen amal solo en tout cas ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye kumba Moreau dalal Amadou Ndione bokk ci collectif euh, des victimes de Guereo Ndos ñu ni mel di xeex comme rek. ngeen koy déggee ci gox yu bare bare euh, seen suuf litige foncier am foofule euh, ñu laaj la lan moo waral euh, ngeen jékki-jékki ñëw ci Guy Marius Sagna wala ñëw ci mouvement FRAPP France dégage pour mu soutenir leen ba tax sax ngeen mën a am benn débouché bu tuuti par rapport ak litige foncier boobu lan moo ko waral yéen a dem ci Guy walla Guy moo ñëw ci yéen. ñun. Hmm? man day dama ko bi dama ko porté wéet ci. yow kese. ma wéet ci parce que wéet bi xam nga lan moo tax. Mhm. mooy dama départ Guéréo autorité yi xam ne ñoom laa seqal département bi kenn waxul ñi ma seqal région bi kenn waxul ma ne na ma dem fii président di yeewoo ma mën fa sama combat mu yëg mu xam ne njoon bu Guéréo mu ngi fii ma ñëw ànd gi Mari Sagna dem jox ko sama décret bi nga xam ne moom. nga ñëw gis Guy mari Sagna. waaw lan moo lan moo la guidé si Guy Marius Sagna. parce que xamul tax. Hmm. da nga koy gis ci xeex yi wala exactement. dama gis position ci ci ci réew mi li nga xam ne tey jii moom bénéfice wu ci mais réew mi ñu ngi ciy bénéfice wu ngir li muy wax. te nit ku nekk loo loo loo ñàkku xam am na wax boo xam ne bu jubee muy kàddu dëgg da nga nangu. nga ne man nag guy mi moo ma ci mën a génn moo ñu ci mën a génn. waaw man moo ma ci mën a génne. nga ñëw fëgg portugais. waaw waaw sama nawle la ma ñëw fëgg portam ñu ñu mais nag man maay priorité. Mhm. moom maay maay porte xeex bi mu topp ci. Mhm. parce que demuma mu xool rek ne kaay ma ñu ñu xeex. dafa gëstu dossier dafa dem gis gëstu dossier yi càmbar ko. ñun demewuñu ci giine ne gii kaay xeex la ñu. Mm. déedéet gii day càmbar. xool ba xam xool ndax lii suñu. Mm-hmm. ndax lii amul loo xam ne am na manquement. Mm-hmm. parce que du dugg ci loo xam ne xamu ko. Mm-hmm. man noonu la coytoy sama dossier te defe naa li mu def ci man noonu la def ci ay nit parce que dama ko wan faute yëppul ko photo décret bi lii xew ci yëpp. ci mbir mi mu xam ko. mun ne ma léegi lan mooy sa position ma ne man sama position mooy nañ ma yëg ci li may dox. te ma koy doxal pour sama population man xaaruma ci kenn parce que man ba may def dama ko def ngir ngëm-ngëm. Mhm. donte sama waajur am na fa mais géeroo na ci bénéfice mhm. man géeroo moo ma ñor. gis nga collectif bi nga xam ne tey jii moom la ñu nekk li mbir mi di dal suñu kaw yëpp si Covid bi dañu tey dañu génne plus de. xaalis bu bari doo tonnes ñu yóbbul ko population bi te pourtant état moo ñu teg loolu. Mhm. te loolu jàppale nañ ko population bi parce que dañu xam ne ñun ak population bi ñooy dëkk te man nañu nañu def def yeneen ak yeneen yoo xam ne ci biir dëkk bi. Mhm. mais nag ñun du ñu nag état amuñu lu ñuy fayante état état juum na rectifier na njuumteem. dañ ko am ngeen avocat ci dossier bi. maître Sarr. moo leen di jàppale maître Moussa Sarr. oui da da ko fay wala fayoo leen ko. ah dossier da nga koy joxe noonu da nga koy hmm? maye. ah parfois ma dégg ñu naan maître am na dossier yoo xam da koy défendre kenn du ko moo tax ma leen di laaj. Ah, ah, ñun suñu dossier fay ngeen xaalis bu bari. ñun suñu dossier dañu fay xaalis. bu bari dañu fay xaalis non duma la wax lii ñu lu ñu fay. doo wax ñaata ngeen fay maître Moussa Sarr. <laughs> mais en tout cas daal fay nañu suñu dossier. Hmm. ngir mu défendre ñu ko. te yoon moo ñu may nañu wutil ku la défendre. Mhm. jeex na def nañu ko. Mhm. ci anam bi nga xam ne moom lañ ko. te am ngeen satisfaction par rapport ak maître Moussa Sarr ni mu taxawee ci dossier Guéro. waaw taxaw na ci en tant que avocat. Mhm. amuñu lu dul rafetlu ko. jël na engagement am ñun li ñu warloog moom def nañ ko ba mu mët sëkk. ñun li ñu warloog maître Moussa saa def nañ ko ba mu mët sëkk. moo tax nag mbir mi dara soofuñu ci. yàlla dogal na nag. ñu wooñu avant résultat Cour suprême di génne état wooñu waxtaan ñu fekk état mu wax ñu ay proposition yoo xam ne arrangé na paysans yi arrangé na état ñu fekk sa état loolu daal def nañu ko ci mbir mi te di wax ne mbir mi mbiru géeraw la mbiru population géeraw la ñun mënuñu lu dul li ñuy def mu leer waa géeraw ñun du ñu duggal projet boo xam ne géréw dina leen ump lépp dana leer. lépp dana leer. pour euh, interview askanu Guéréo léegi euh, naka nga gisee Amadou Dione problème mu litige foncier yi nga xamante ni am na ci réew mi parce que li dal Guéréo dal na ay euh, dëkk yu baree bari temps yi rek dalaloon naa fi waa Bambey ainsi de suite yi ma ci dalal ci problème litige foncier kenn xamul nu ñu toll. naka nga gise souvent problème mu suuf bi am Sénégal jël nañ suñu suuf nangu nañ suñu suuf jaay nañ ñu doole jox nañ ko tubaab bi jox nañ ko privé yi jox nañ ko milliardaire bi un peu partout ban jàngat nga ci am. xam nga jàngat bi ma ci am mooy foog président jëlaat ay mesures gis nga mbir mi dafa ëpp loxo. Mhm. te bari na ci mairie yi. xam nga ñun dañu yuuxu. Mhm. si suufu géeraw. si suufu géeraw dem si média beeg. Mhm. mais am na yeneen suuf yoo xam ne noonu la lëjë woon ci géeraw. ba population bi taxaw ci. mais bu léegi amuñu satisfaction. leerul ci population bi te ñi ko def ñu nekk ay conseil nekk maire te li nga xam ne moo leen warloo askan bi duñ ko mos leeral. Mhm. parce que mënuma d'accord tey jii nga ne projet. Mhm. projet dëkk daf ciy ja. daf ciy daf ciy jariñoo mhm. mais projet boo xam ne kii nga xam ne moo wut sa projet bi xamul dëkk bii nga xam ne moom laay wut projet bi. est-ce que loolu loolu yëfu njub te dafa am yoo xam ne suñuy maire ñu ngi koy def. rafetul. moo tax ñun ñu bëgg président Macky Sall wallaay wa rasul na tëgg élection locale yi parce que am na maire yoo xam ne force ñu dem. Ah parce que amaluñu askan bi njariñ. Mhm. te ñooñu ñaar mooy population bi ñoo leen di sanction gis nga ni daal yooyu maire yi dañ si tax répp dañ si tax dafa am maire yoo xam ne taxawaay bi leen warloo ko askan bi dañ ko deful mhm. gis nga nit ba nga soxlee ci askan bi nga dem askan boobu dara warula umpale ñoom seen suuf boo ko jëlee war nga dem wax noo ko jëlee am na nay projet yoo xam ne ñun am nañu cas bu demee noonu le cas de Ndombo 2015 ci Guéréo mais projet bi kenn porté wu ko ñëw ak Guéréo commune porté wu ko. Mhm. nii les conseils te li si gën a garaaw mooy nan la ñuy mën a joxe Sonatel hectares yu toll noonu population bi néewuñu oo courant mais ci ñoom ñoom ñu xam ñi xam ne ñoom moom suuf si ñu dem seeti leen te yow mënoo indil projet bi population bi te Sonatel dafa ñëwoon pour jënd pour ay ay emploi am mais loolu du projet mais nañu leeral population bi ne leen ah. Mhm. lii day Sonatel daf ko soxla ci seen suuf. Mhm. ñoom bi toog. Sonat projet bi waa Sonatel toog ñu wax ne ah ñun de suufu géeroo la ñu mais suuf si boobu ba léegi yow benn conseil jënn vidéo ne ah def nañu délibération si deux cent hectares jox Sonatel cent soixante hectares. Mhm. lu des quarante. Mhm. quarante yooyu gisuñu ko. ma dem fekki beneen conseil laaj ko délibération Sonatel nan la mu ne ma Sonatel cent cinquante hectares lañ ko defal délibération. Mhm. cent hectares yi moom la ñu moom la Sonatel jël cinquante hectares desu fa cinquante hectares yooyu leerul ba léegi ñun leerul suñu déggante commune dëpp deux mille quinze ba léegi projet boobu ñun ñu ngi koy wax ñu ne projet te bu léegi leerul si population ñun genre projet yooyu duñ ci dugg ñun li ñuy indil dañuy indil askan bi lu leer parce que askan bi la ñu am parce que nit da ngay tiitaroo sa waa dëkk. ñuy am cofeel ci yow ci sa wóolute si mm-hmm. seen sa njàmbarte mm-hmm. parce que newuñu ay yaafus mm-hmm. mais nag mënoo nangu kàddu askan bi ba pare nga nekk yaafus nekk nag intérêt personnel nga koy doxal parce que yooyu moo jeex ci àddina mooy askan bi nañuy xam li leen war sa diggante ak ñoom Euh, Amadou presque pratiquement temps bi jeex na juste euh, une deux minutes moo ñu dese euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo lancer sa dernier appel par rapport ak dossier bu Guéréo waaw maa ngi remercier ñëpp di la sant bu baax. Mm-hmm. di sant Front Lutte doy na ak Guy Marius mm-hmm. di sant waa collectif de Guéréo Ndos di sant waa Guéréo di sant samay waajur mm-hmm. di sant ñii xam ne tey jii mbir mi jaraloon na leen lu ne. Mm-hmm. mais nag ñu ñaan impôt et domaine ñu baral mbir mi. Mm-hmm. tubaab bi na ñëw wax bu manul mu joge mu dandu. état moo ko fi teg mais état na wax ak moom mu ñëw gis borom tool yi li ko warloog borom tool yi mu def ko ñu loolu la ñuy xaar te ñu ngi rafetlu bu baax ci ñëw bi ñu ñëw fii di ñaanal rajo bi. Mm-hmm. mu yokk ba gis ci boppam. te ñu gën a fexe xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk bokk gi ñu ko bokk mooy war nañu am lu ñuy sóoraale suñu diggante ak suñu nawle mooy ku ci nekk war nga am looy dox te mu nekk sa mission te lépp mu sax ci jàmm coow am na mais juboo day am mooy bu fekkee ne xol yaatal nañ ko mooy dañuy juboo mooy dañuy teg li nga xam ne mooy lii gën. ci mhm. askan bi ñu def ko ñu nangu ko. Mhm. loolu daal laa amoon lu ma ciy wax. ayca ñu ngi mhm. maa ngi lay remercier di remercier waa rajo bi bu baax. di remercier samay xarit samay soppe samay am di jàmm yi di remercier samay frère ak samay soxna. ayca mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax Amadou Dione bokk ci collectif euh, des victimes euh, de Guéréo euh, Ndos nekk ab litige foncier kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ni indi na ko ci problème mu suuf soosu lee nekk ca Guéréo di remercier Léon Paul Mendy bi nekkoon ci machine bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11 émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.